nit ku bon moo gën nit ku sew. rajo Sénégal numéro 2 sëñ Mouhamadou Lamine Baara ñu lay saara baax xam naa rabitatul ko yi eh, bi nga xam ne xam naa sëñ Xaadi Jaxate boo demee moo nekk seen coordinateur seen coordinateur fa la ca Dakar sëñ Xaadim Njaay xam naa ko bu baax imam moo jàngal sax sëñ boobu noonu nekk ci Masaalikul Jinaan di naafila dégg naa ko wax ko xalaat na alaali saani ci laa mel wax na ñoom daal gàntal nañ ko. dem gi ndax daal dem gi ñoom xam lu muy wund mais noonu ci vidéo bi ma dugal ndax nee ñoom li leen jaaxal mooy ndaje yu mel ni yàgg nañ leen ko woo ñu koy wuy ji dafa ñu demee boo dem yoo xam ne ay points la yu bindoon jox gouvernement bi gisuñ ñoom luñ ci respecté ba daana ñoom daal ñoom comme nee nañ gisuñ lan moo war a daal ñu dem ci woote boo xam ne sax liñ ci gën a jortu mooy woote la boo xam ne mbooloo ngir dajale mbooloo ko tax a jóg ak mbooloo ndax centre conférence internationale ba mu jëf bi ñu ko organisé rek doy na ci ne loolu foofu moom ndaje politique moo fa mën a wala lu ci aju ak liñ soxla ci ay nombre ndax bu fekkee ne lii nag moom sama commentaire la bu fekkee maanaam luy tax njàng mi jëm kanam moom doyewuñ dara dongay moom dongay moom doyewuñ leen dara wutuñ fa dara waaw dongay ñoom kaay nañ jàng si rek ñu jàng si ñoom mokkal ñibbi la ki leen di jàngal nag dañ la fexe mu am ay jumtuwaay ak moyens yu tax ci njàngale mi ba kooku moom moom lañ war muy sëriñ daara bi ba pare itam ci biir audio yi audio yi da nga gis ne fuite de fuite da ci am ndax waa ji wax na ni maanaam bu ngeen defut li ñu leen sant rek ñeneen exploité affaire yi loolu ne loolu laa ne damay bañ ñeneen exploité affaire yi c'est-à-dire mooy bu ngeen gaaw def li ñu leen sant ci ci secret maanaam ñi ñuy wax patriote yi Ousmane Sonko mi nga xam actuellement Serigne Daara yi lañ jox bopp man na daan dajale man nag ci sama xalaat bu gàtt actuellement président Sonko def ko. waroon na koo jéem def ko convoqué sëriñ daara yi ñoom ñëpp ñoom waxtaan ak ñoom te boobaa jàpp naa ne ñëpp danañ ko wuyu ji ñëpp danañ ko wuyu ji suñu yeggee itam bu leen waxee dara naa nañ ko mën a gëm ndax Ziguinchor moom xaw ma ñan waaye Ousmane ko ku mu dig la mu dig du ko def moom Ziguinchor ñoom duñ ko wax ata la ca joxuñ ko moyens yi war sax mu mën a def li tax li li mu diggee ak ñoom mooy yooyu amu ko waaw waaye teewut la mën a gas ne ma koy def mi ngi majjal mi ngi def lu ne daal mi ngi collecté li ngeen xaalis si def lépp mu ngir rek satisfaire besoin yi si ngeen soxla li nga xam ne lépp nag mën na ko def ci moom ma ngi koy def ci ñoom gën a a te ñoom loolu mënuñ ko woon am ci seen bopp la ma gën a neex nag mooy ni mu occupé maire bi te indiwu fa problème parce que dama demee ci maire lu fekk ci loolu noonu yi bu fekkoon moom président Sonko dafa ñëw ne fekk ndax loolu moom maire fekk na ko fa gis na ko waaye dafa nekk ci di ko defar ak lijjanti waaye baa mu leen di dénoncé ci presse beeg yu mel noonu man système euh, dirigeant dirigeant bi laa soxla système gouvernance bi laa soxla man damaa bëggoon nit njiitum réew boo demee ba njiitum réew dox wala nga yor ab institution wala nga yor sax loo xam ni luy dox la daal loo xam ne jiite mbooloo wala alalu population wala njiitu askan boo ci fekkee loo xam ne du noonu dénoncé ki publiquement du ko jar li am solo mooy nga xool voie yi nga xam ne man nga caa jaar ba réglé loolee. te coow du jib man jàpp naa ne session ba mu fekk si 15 heures du session bu baax ndax bind benn note jox ko ñi nga xam ne dañ leen a embauché woon ca mairie ba ne leen ah yéen kat seen contrat weer sàngam bi mënatul a wéy di leen di leen embauché di leen employé di leen fay même bu mu dikkee ne waaye mënoon na faa nekk naan waaw yéen damay annulé seen contrat su boobaa ñoom dañuy coxoog moom waaye ba mu leen ba muy annulé ba muy annulé contrat yi ñoom xam ne lii muy def am na ci droit. am nañu droit da nek bañ jaxal mu door len déclarer né ah man ko ma wéy di len employé ma wéy di len employé ma dox sëriñ daara yi nga xam ne daal ñoo nek ci rabita bi di di di def discours bi ñuy def ni ni ni publiquement ñepp di ko dégg ñu na ànd ak loolu lépp nag rafetlu nañ wote bi ah mm, képp ko xamné jëlon nga sa kàddu wax ci maanaam moytuloo leen wote bi ak bañ leena bañ a wuyu ji woote bi war nga leena rendre hommage war nga leena rendre hommage ndax li ñu def itam gouvernement bi du ko ba noonu te ay risque lañ def parce que lu toll ni état du Sénégal wala nga gàntal ab wooteem loolu xam nga minima minimiser minimiser kàddu kilifa la aussi itam jël sa liberté jël sa liberté ak it encore une fois seetlu yàlla bëgg yeneen te bëgg nga def ko loolu rek lay lay signifié loolu nag ñi nga xam ne ñoo jëloon ay kàddu avertissé leen ne leen bu leen dem jëloon ay kàddu li ñuy wax mettre leen en garde ñoom ñëpp nañ waxaat jàppale leen ci seen voie jàppale leen. rendre hommage nak man de dinaa ko def bu soba yalla rabita bi mom dina len rendre hommage bu baakha baakha baakha baakha na a ko def ndax li tax ma di ko def moy dama bokku ci ñi nga xamni dañ leen doon moytuloo ak wuy ji ak ab wuy ji wuy ji wala président Macky Sall ñu taxaw ba léegi nag kenn nga ko wuy ko lool ñu dañ leen di sant gërëm leen ci ah def benn audio boo xam hmm, jëna ko yaatu ñu tamit ñoom danañ xam yeen organisation coranique na ci rew mi na bu ñu amé contact wax leen ñoom li leen motivé ba ñu woote bi ñu ko wuy ji faa jaay moo xam ne que seen naa rek ko defee na woote la xam dana am ñu dem waaye ñuy dem ku da lan ci nit bu def gëstu di nga xam ne ñii wuy ji moom maanaam dañu ay sëriñ daara ay gars yu daqale képp lañ Sénégal numéro 2